seen premier événement moo nekk ci làmb waaye structure bi ak lu ñu ci namu lépp nekkul làmb kese parce que ñoo ngi programme ay événementiel yu mag ñoo ngi am ay yeneen programme yoo xamante ni moo ngi suñu kanam te waxtaan nañ si ba tënk te incha allah rabi bu événement bi jàllee làmb bi nii dañ ci gën a leeral bu baax incha allah bi aussi waaw ñoo ngi ci baax a baax a baax ñoo ngi ci baax a baax barki démb rek euh, am na ku ma siy waxtaanal sax bañ am programme boo xamante ni si euh, mois de avril bi. ñoo ngi ko war a def incha allah rabi. am ji maa ko tuddee Abdoulahat Sarr Daz. waa loolu dëgg na duñu benn. waaw dina métti trop nag waaye du tere euh, euh, métti na waaye dara ñoo ngi koy gérer daal. waaw dina ci am benn côté bi waaye tam boo xamee ni ngay doxee ak ni ngay dundee rek euh, mën na bañ a def si yow benn fay. waaw le premier moom nañ fa am ay spectacle yu bees yu doy waar. dina am spectacle yu doy waar te le premier incha allah bi waa Mbour nañ gis leneen lu bokkut li ñu daan gis incha allah rabi loolu waa Gëm ko te dina am bu soobee yàlla. waaw ñoo ngi taxawal Pàccam ak Ousmane Gandigal mooy combat bu mag bi euh, ak Ama Balde bu Médine euh, ak Soldaaru Baay euh, beneen combat bi stop mooy jëgëm jëgëm ak Jos bu Warang ak B52 ak Modou Lo bu Aynumaan ak Baye Xaali Mbalka 2 ak Lamtoro. waaw parce que di wax rek booy bay. Euh, euh, da ngay commencer sa sa tànk moo tax ñu nekk Mbour euh, commencer ci waa département de Mbour incha allah waaye nag du yàgg dara dinañ ñëw Dakar toj ko bu soobee yàlla. dakaar waaw boobu dañuy préparer rek nañ indi lu rëy incha allah rek bi buy ñëw Dakar. waaw mooy ni ma koy waxee waa Mbour rek man seen doom laa seen jarbaat laa seen rakk laa donte juddoo ma Mbour Dakar laa juddoo waaye nag mën naa ne sama màgg ak sama liggéey lépp suñu borom mbuur la ko sottalee. kon waa mbuur chaque jour lu may wax si ñoom rek mooy di leen woo surtout di gërëm fu ma dëkk encore muy onkat table excellence ñooñ tamit aw ma seen fay parce que depuis lu ëpp fukki gis naa ni ñu ma jàppee te gis naa ni ñu ma jàppale baax a baax parce que gëm naa ne ñoom tamit bokk nañ si ñu ma dooleel ba ma toll fii nii. waaw di sant suñu borom bu baax a baax rek di am kontante bu mag di woo waa Mbour ñu def mobilisation bu am doole jour le premier incha allah rabi di gërëm tam sama waa euh, structure muy waa gëm-gëm production. ñoom tamit aw ma seen fay maa ngi leen gërëm bu baax di gërëm sama mag mu topp sama ginnaaw muy Moussa Los Los production moom tam aw ma fayam parce que su ma waxee mën naa ne lépp moom la daal di sant bu baax Omar Diaw tamit sama coordinateur ak waa ñoom tafaatin gars yëpp maa ngi leen bëggee baax a baax ak yéen waa Dakar kii Dakar Dakaractu maa ngi kontaan ci yéen baax a baax parce que tamit wax dëgg yàlla yéen ñuy jàppale te gis nañ seen taxawaay si ñun jeunes yi comme suñu classe gi jeunes yi doo ko dugg ci benn affaire gis nañ ñu ngi leen jàppale baax a baax kon man kontaan naa baax a baax di gërëm sama gars yi ma àndal ñoom Sadibou ñoom Omar ñoom Abdou Ndiaye ñoom yépp maa ngi leen bëggee baax a baax di grand di gërëm tam sama mag sama xarit euh, Mbaye moom tam maa ngi koy bëggee baax a baax kontaan naa trop.